bismillahi arrahmani rahim ñu ñëw ci njàngalem Serigne Touba ci ñeen fukk bi ak benn am na naar yu ma a ñëw ci Serigne Touba xaada lawo law maxtaar lawo ni ko ñooy sëti yonante bi salallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama sun maam la ñuy laaj Serigne bi ni leen jigi leen fii baa mu leen loo ngeen wax ba muy ñetti yoon ñu def ko sëriñ Tuubaa xaadaloo la muxtaar loo ni ana muxtaar si la àndal ak ñoo ñii te nga mel ni bu ma àndoon ak yow ba ba may jóge fa yow bi ba ba bis ba delsee sëriñ bi ni ko wool ma ñooñee ñu ñëw sëriñ bi ni leen lu leen taxoon a jóg ñu daal wax lañu waxoon ba muy ñetti yoon sëriñ bi fettasu gaalu xaalis gu fa nekkoon ni leen loolu lii ngeen wax tàbbal nañu ci lii daal wax lu ma juróomi nit yoo xam ni moo tudd seeni tur ni leen andi leen maag gan yooyu yóbbu leen gaal gi te ngeen mel ni ba ma àndoon ak yéen ba ma may jóge fa yéen bu leen fa jógee te gaal googee demul ba ñu demee am taalibe buy bëgg a wax sëriñ Tuuba xaadaloxo law maxtaarloxo naa ko ba nga nekkee gànnaar sëriñ bi ni ko yamal foofu wér na sëriñ bi li muy jëflanteeg naar yi ak woyof yi lu ci ne am lu mu ci jublu loo xam ni bu la ko waxoon yow mi ko xamul doo wax dara lu dul hakada yakunu negam sunuy xam-xam bariwul li gën ci nun mooy rafet njott ci moom bu wér wallahu aalam gis nanu ci fajiinu wolof lu ñu wax ni ci Sëriñ Tuuba xaadalaho la maxtaar loolu la jóge mi ngi nii weeru xarab wu dugg alxamis ja ca njëkk wala altene guddi ga ko jiitu da ngay wut layduur di doom ya ak bantee ba mu set nga def ko ci ndab ub ko def ca dankob daxaar boo ko amul def ca bisaab baxal ndox sotti ca ub ko mu fanaan ba fajar boo jullee ba salmal xent ko jàng fatiha ak fàllaxe ak naasi tefli ca naan ba sa biir fees te dox jéego yu bari bu naajee nga jëfandikoo lu mel ni ab laax te mu ànd ak soow sëriñ bi neena lii ko koy def boo ko yëgee ak boo ko yëgul jariñ na la te docteur du am ci yow aw yoon siiw na garab yi bari na lool ay njariñ rawante naag sunu garab yi wolof yi waaye ñu bari dañu ko dul xam fi mu ne ku leen di saxal da nga am lool wér gu yéeme sëriñ bi bu nu xoolee laax bi mu daan jëfandikoo day am daxaar daana am itam jar bu nu xoolee ba tey li tax lay doon mën a faj lépp wala lu bari moo di mbooleem tawat yi mi ngi jugee ci loo lekk wala loo naan wala loo noy su defee lay doon moom day xeex ak li nekk ci biir lépp lu mu ci man génne ko naka noonu daqaar waaye daqaar da koo ëpp doole ci ak wet ndax moom day dugg ci biir deret ji di ko raxas te loolu lay dóor mënu ko naka noonu lem day raxas deret ji xëy na sax ñuy boole daqaar ak lay dóor mooy li ma wax léegi nga xam ni fu lay dóor mënta àgg daqaar man faa àgg wallahu aalam am na ko masa taseeg sëriñ Tuuba xaadala wallahu maxtaar la woo mu ni ko kii kan la mu ni ko man a seex sëriñ bi ni ko kuy sa baay mu ni ko sëriñ Abdou Dia sëriñ Tuuba xaadala wallahu maxtaar la woo ni ko mooy sa baay mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko demal wool ma ko siiw na mel na ni njëkk mu koy woolu yàgg na fa lool mënta gis sëriñ bi soxna Daba Buso radiyallahu taala anhu nee bu ñu masaana gis Sëriñ Tuuba xaada lahoo laaw maxtaara lahoo da leen di jox miskit ñu naan ko yàlla na nga am ngërëmul maam boroom Tuuba te dëkk Tuuba mu naa amiin wér na loolu dañuy xamal ni joxe baax na lool rawante naag ku nekk gone nga di ko jox ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala mas naa dégg Sëriñ Saalihu radiallahu taala anhu mu jox gone yi bégal leen la ci jublu wallahu alam am na ko sëriñ tuuba xaada lahoo lahoo maxtaaloo masa wax boo gisee ma fonk la du dara lu du tudd gi ñu la tudde yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa daana wax xanaa doo may lii sa baay lu bari ba bis sëriñ bi ni ko xanaa sa baay amul dara mu ni ko yow rek la am am na ku masa nuyu sëriñ tuuba xaada lahoo lahoo maxtaaloo ni ko yaay bàyyi sëriñ Mustapha ak sëriñ Baara mu ni ko waaw mu ni ko yow la tubaab bi yóbbu woon ci géej gi mu ni ko waaw mu ko loo andaale Serigne Touba xaada lahoo law maxtaar lahoo ni ko lépp siwna na loolu ki ko doon laaj bi mu ko laaj du mag li ko sëriñ bi tontu itam leeraan na ko lool ci ay kun bi kun sarmadan wajal masiriya za jawfal fara lil wara mitlal maharini wallahu alam sëriñ tuuba xaada laxoo la maxtaar laxoo mas na laaj sëriñ abdul xaadir radiallahu taala anhu foo toll mu ni ko suratul xajji sëriñ bi ni ko loolu kiimaan la di ma woolu la ci sil sol xijja nga toll ci suratul xajji sëriñ tuuba xaada laxoo la maxtaar laxoo téye na ko fa ay fan waaye saa yu koy woolu bu ñëwee day am jamaal lool siiw na sëriñ bi waa këram yépp ku ci ne ak la ko taxa ñëw jamono da koy xam bu ñu seetloo seen tur yi itam danañu xam ni ku ci nekk wuute na ak moroomam ay jubluwaay bokk na ci kiimaan yi doomi Sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaara lawo ku ci nekk nii ñu ko xame ci ak magam ni la masa mel ba muy jàng ak ba mu noppee ba na mu làqoo loolu limu mu ni xamal mooy dañoo àndaale seeni cër muy góor muy keneen wallahu alam serigne touba haadaloho law maktarloho neena fu ma waay woowe danaa la wusi waaye ku may woo it nama woo ci lu ko mat siiw na uduuni astajib lakum amman yujibu lmuttarra isa dahaw sunu borom subhanahu wa taala dana wuyu ñépp bu ñu ko woowee waaye ki loru lee gën a gaaw wuyu képp kuy woo sunu borom war ngaa ànd ki teggin yu mat door koo woo boo ko deful mën naa waral ay lor ci yow wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na bopp bi barke sax nopp ya day dégg ndigal siiw na dañuy xamal ni ci topp ndigal yi ci la barke nekk lu nu gën a sax ci ndigal yi di gën a am barke bu ñu dul laal tere yi wallahu ñu ñëw ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ci juróom fukk bi Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar nee na ku ñëw jox ma boppam yettal naa ko gaal def ca bën bën fob doom ba denc caabi lay wax doom bu ëllëgee law gisul ca gaal ga bu ma sikk sikkal sa bopp mën naa loo ca tàbbal ma ful ko waaye bañ caa def dara am dara mënta nekk siiw na sëriñ bi li muy wax naan lastu ashukku abadan fi ni jaaral badi ajaban kaw ni day feeñ ci waxam yi ak jëfam yi yépp ndax ful moom yàlla rekk moo koy def man jaa bil hasanati fa lahu hashru waaye sëriñ bi suñu borom subhanahu da ko boole ci boppam ginnaaw bi mu seetalee léppam ci ludul moom moo waral bu nuy seetlu waxinam muy nuroogu waxinu sunu boroom lool bëri na lool lu muy wax danaa la defal nangam wala loo bëgg wala danga mel nangam wala danga dem ba gis nangam wala yawmal xiyaam danaa la defal nangam wala danaa la tàbbal ajjana wala musal naa la ci sawara waxin yi kenn ñi wu wax kudul moom mi wax ni illa yaqaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalahu laaw maxtaarlowoo nee na àjjana daa neexuta andi ci adduna waaye lu mën a ñëw dana ñëw siiw na foo gis wax ju mel ni am na ñumu ñu gërëm lool doon leen ko wax loolu mooy waliman xaafa maqaama rabbihi jannataani wallahu taala alam sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaar la nee na sunu boroom musal na ma ci ñett musal na ma ci jaawale musal na ma ci fàtte musal na ma ci juum siw na laa yadillu rabbi wala yansa sëriñ bi taqoo gi mu taqoog boroomam moo waral meroy boroomam di feeñ ci moom wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaada la wallaahu maxtaar la nee na ndaw lu ma jox ak ndawam boo màggee ma yoral la sag mag na boo dee jox sëriñ bi sang ndaw da ngay taxoo jàng alquran ak xasidaam di leen bind di leen jàngale tey moytu tere yi fa kullu man baadara waxta sigari ila alhuda staraha waxtal kibari sëriñ tuba xaadaloho law maxtaar loho mas naa laaj sëriñ xamsatu jaxate radiallahu taala anhu xam nga lu tax wasiqa allazina kafaru ila jahannama zumaran xata isa jaauha futihat abwaabuha وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يرلون عليكم آيات ربكم وينشرونكم لقاء يومكم عسى قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين نقوم مثلا خمغ لطخ فوف أم الواو من كدير بك سرين توبا خادلو لاو مختلو نيكو يفري بنيو دمي بأت بيس بنش بنات سوار دلين دي يكامتي موتاخ بنيو كجوبي بنتو يدي حبكو البابم daadi ni ko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 moo tax wa nazana ma fi sudurihim min xillin ixwanan ala sururin mutaxaabilin ab defaraat la bu ñuy def boo sënguwul itam dara du xeen ci yow yu mel noonu moo waral yàggaay ba ba tax sunu borom def fi waaw waaye lépp loo xam ni waaye am na ko ci adduna te tabbiwul ci demir xëy na demir ji ci biir maam te tabbiwul ci biir demir jooju muy wax salaamun aleykum tiptum ak muy demiri tiptum joojee tabbi woo ca ak faddu xulooxaa ca waaw ja bokkoo ca ak xaalidina yaag nun nga bokkoo ca amoo dara ci aduna lu ci waaye amut moto ñee waaye lu ci waaye am loo ñàkk ci aduna war nga koo mën a muñ waaw li mu jublu wax rek mooy demir yooyu muy wax muy tib tum goog faddu xulooxaa ak xaalidina ge ku ci tabbi rek loo ñàkk mën nga koo muñ ku ci tabbi wudit loo am mel na ni amoo dara wax ji da cee am loo xam ni daa aju ci xam arab xamul arab ak nahu daanaka du leer ceew waaye li mu bëgg a xamle mucc mooy tax a tàbbi ajjana ku setul dañu koy setal mu door faa tàbbi loolu moo waral ku set doonte faatuwul day nuroo ku nekk ajjana masafu lam yarima wallahu alam ñu ñëw ci njàngalem Sëriñ Tuubaa ci juróom fukk bi ak juróom am na mag mu daan moytu jëw lool ba bis mu ñëw ci sëriñ Tuubaa xaadaloho law maxtaaloho mu ni ko mbaadoo jëw mu ni ko maa ngi koy wattandiku lu ma man sëriñ bi ni ko xam nga luy jëw mu ni ko dégg naa ci téere ñu ni mooy nit fu mu nekkul di ci wax lu ñaaw wala loo xam ni bu ko déggoon du ko neex sëriñ bi ni ko waxuma la wax googu waaye fu ñu koy tudde jugal dem diglu gi laay bañ siiw na jëw bokk na ci bàkkaar yu mag yi nee nañu ci téere yi diglu ko ak def ko ñooyam li nuy mën a musal ci jamono ji moo di néewal ay wax tey bëril suñuy jëf yal nañu yàlla musal war nañuy xam ni yàlla subhanahu wa taala ak sëriñ bi ak sëriñ Tuuba ñoo bokk ak bëgg mbooleem lu yàlla di tere sëriñ bi bañ na ko lool wallahu alam sëriñ Issa Diagne radiallahu taala anhu mas naa andil sëriñ tuuba xaadalahoo la maxtaloo sikki su bari mu mel ni sëriñ bi da ko doon waaj xeeñal sëriñ Masamba ni ko téema ko defal ferey sëriñ bi ni ko maa leen koy defalal saa bopp daal di tàmbali ku ci ne mu yëkkati mbubbam ca ginnaaw sotti ko ba ñu xeeñ booba matoon nañu fukka ngi ñaar siiw na xëy na dañu doon jàng wala mu leen doon bëgg a bégal ci loolu waaye mel na ni ñi daan yëkkati xasida la ko daan defal li ci ëpp wallahu alam bi ñuy joxe xaalis bi jëm ci jumaa yi njaareem daanañ ko jaarale ci sëriñ Masamba ci ndigalul sëriñ bi daanañ di ko jëlli ci biir kër gi sëriñ Tuubaa xaada lahu maalum lahu maxtaar lahu ni jëlli ci la lu ñu jëlli ngir man dees na ko for te bu ñu ko foree ma nangu ko siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaaralahu nee na loo mënta sax ci sawara bu ko sax ci lu naqari yàlla siiw na Sëriñ Tuubaa xaadalahu lahu maxtaaralahu nee na baraana ku dugg ci bàmmeel boo ko laajee lu tax ñu di la caw muy dóor mu ni la lu ma waxoon ci àdduna la baraana ko daaju ci biir sawara boo ko laajee lu la fi andi mu la lu ma lekkoon la siiw na andi woon naa ko waaye waxin yi moo wuute tuuti wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo nee na fi njaareem lañu ma waxe sama ginnaaw ni muy mel siiw na Sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo nee na tubaab yi bi ñu may yóbbu ci géej gi wala bi ma nekkee ci géej gi gaar yi ñu ma doon yoral bu ñu ci amoon pësteef jariñu siiw na sëriñ saalihu radiallahu taala anhu bi muy gone mas naa jox sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo ab mu ni ko xam nga lu mu doon mu ni ko nee nañ ma ab dërëm la sëriñ bi ni ko loo ci jublu mu ni ko dama la koo jox hadiya siiw na sëriñ moodu siise radiallahu taala anhu mas naa dox ba gànnaar fekk sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo sonn lool sëriñ bi ni ko demal delluwaat ci réew ma mu daal dëpp ñëwaat ak tànkam ba xabaan mu nekk fa di bay ba nawet ba jeex lu dul benn dërëm mu daal di doxati ñëw gànnaar jox ko Serigne Touba xaada lahu lahu maxtar lahu fekk na maam Cheikh Ibra yónni Serigne Hassan Thiam ab junni radiallahu taala ci Serigne Touba xaada lahu lahu maxtar lahu Serigne bi ni junni bi ñëw na waaye boroom dërëm bi laay seere kii ma jox dërëm bii bu amoon ab junni dana ma ko jox siiw na kon loolu mooy ci pas-pas yi la jëf yi di wuutee wallahu alam sëriñ ibra kebe radiallahu taala anhu mas na yónnee sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaraloo hadiya fekk na booba jébbuloogul sëriñ bi woolu ko mu ñëw ko man dog naa wirdu wi te dañ ma ko doon aaye sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaaraloo ni ko ku xamul fañuy defaroo doo xam fañu yàqoo fii nga ñëw ku ñu fi woo ñëw loo sori sori ku jige itam loo jige jige te woowuñu la doo ñëw siiw na dañuy xamal ni daa tànn ñi muy àndal doo ñëw adduna loolu leeral na ko ci ay mbindam ak waxam lu bari lool xadan zala ayati laka llahu xad nafat li gayri siwa man xaarahum lii min alxalqi wallahu taala huwa al alam ñoo ci ñàngalem sëriñ Tuubaa ci juróom benn fukk bi ak juróom Sëriñ Tuubaa xaada la la nee na nit ku nekk sa taaxum wurus wala àjjana la bëgg a wax doom ba ko yor li feeg daanoo sa bakkan doo jot ca doom ba doom ba mooy ceebi ja rek siiw na wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il fa in aljannata hiya almahwa wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada la la nee na téere yi jot guddal lépp loo xam ni boo ci nekkee bëgg ku la ca fekk bëgg ko la ko nettalil lu baax la jàppal lépp loo xam ni bëggoo ko la ca fekk bëggoo ku la ko nettalil waccal lu bon la siiw na ñëw na ci ay nettali yu bari yu wuute walaahu alam Sëriñ Tuubaa xaada la wala maxtarloo nee na def lu baax fépp baax na waaye defe ko Tuubaa fa la sakkane siiw na ndax dañu koy ful ba mu tolloog jaamu yu bari faneen loolu leeral na ko ak ni muy toll ci ay waxtaan wallahu aalam sëriñ tuba xaada lahu law maxaar lahu masna ubbi wax ni ne ñëpp génn ba ñu génnee ba mu dugg nit ñu del siwaat toog ci wetu bunti sëriñ bi laaj ñu ni ko ñëpp del si nañu mu ni alhamdulillah ndax am moos nit ñi mënuñu maa muñ man rek lañu bëgg daal di ubbiwaat siiw na sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaaralahoo mas naa wax sëriñ Malaamin Saw radiallahu taala an ni ko santale ma yàlla moo des ndax lu mat def def naa ko lu mat a wax wax naa ko mu ni ko ku lay santale yàlla nu mu koy defe sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaaralahoo ni ko kenn ku ne da nga naan alhamdulillahi la si hadaana li haasa siiw na alhamdulillahi la si hadaana li haasa dañuy xamal ni yam ci moom ak i mbiram ak mooy li war képp ku ko yaakaar gis nanu moom léppam da koo jëmale ci yàlla subhanahu wa taala mindam yépp wajjahatu kulliya lay wax ak wajjahatu wacciya naka noonu murid bu koy santale da ngay jàng xasidaam lu bari di leen bind di leen diglu boo koy def waxtu nekk day ànd ak yow ngay xam li muy tànn ci yow ci jëf yeneen yi wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo nee na dama laaj sama borom tama mbind yi nangu nga ko nangu nga lépp walla daa am loo ci nangu bàyyi la ca des mu ni ma lépp laa nangu ma ni ko ndax mas nga koo dawale sama digg kenn li muy nuru fii mooy amal maam mas nga koo amalal kenn mu ni ko déedéet mennum yow laa nangu sa mbind yépp ma ni ko seenub yool nu mu toll mu ni ma labal na adduna ak li ci nekk ma laaj ko nu mu labale adduna ak adduna ni mu réyee mu ni ma maamel noonu te sama dara xajul ci adduna te yow saxara xaraf wu nekk ci man la jóge jëm ci man siiw na am na tuuti soppi yu ma soppi ci waxiinu arab bi ak lu ma ci dindi waaye lii mooy jublu sëriñ bi wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalahoo laaw maxtaarlahoo nee na am na péey xëy na muy bërëb bu ne ca kaw boo yett yi lëf laa fa fekk ñàkk ba noppi tabe wéet ak loo bëgg maanu ca atte sab xarit ci dëgg ñett yii mooy tijji pay ba tiw na lépp mu ngi dellu ci ragal yàlla subhanahu wa taala ragal doo laal yi fi jàmbur danga nga mën a atte sab xarit ci dëgg waaye lu mel ni ñàkk ba noppi tabe moom mayu yàlla la wa man yuuxa shuxa nafsihi fa ulaika hum muflixuun wallahu aalam yal sunu suñu borom tawféexale yu yépp Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo mas naa wax ana ku doon jàng Mawaahibu Naafix biig du Sàmb sëriñ bi ni nañu ma ko wool ba ñu ko woo ba mu ñëw sëriñ bi ni ko yaa doon jàng Mawaahibu Naafix biig mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko ndax man nga koo saxal di ko def mu ni ko danga ma fàttali sama taalibe ba Madina loo ca Jolof guddig biig siiw na gis nañu sëriñ bi ni mu mel ci xasaay yi waaye dégg nañu li mu ko wax muy man nga koo saxal di ko def kon saxal mooy li am solo ci mbir yépp yal nañu yàlla saxal ci ay xasidaam faaw bu ñu weetee di leen jàng bu ñu weetul di leen jàng wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaadalahoo law maxtaaralahoo mas naa woo Ibra Faal buuba radiallahu taala anu ni ko kaay jàngal ma fee mawaahibu naafi ba mu noppee sëriñ bi tijji baraag bu def ay yére ni ko fobal mu fob lépp sëriñ bi ni ko noppi nga mu ni ko waaw sëriñ bi ni ko dajjil baraag bi yóbbu boole ci siiw na andi woon naa ko ci waxtaan wu gudd woo xam ni moo gën a jotal wii daa mel ni wii daa gàttal woowa wallahu alam mas nañuy laaj sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaar lawoo sotti gi sëriñ ma sàmba radiallahu taala anhu di sotti xasaayid yi sëriñ bi ni leen loolu ma sàmba defu ko ci boppam man mii itam defuma ko ci moom yàllaa ko ko may siiw na loolu xam naa du soreeg li mu wax ni xaside yi ñoo sàkku fa yàlla ma sàmba di leen maas ba tey loolu dananu xamal ni sëriñ bi képp kuy liggéey ci xasaay xasidaami ku ñu tànn ngay doon bu ñu na tànnul doo ko man wallahu aalam am na ko sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaaloo masa yónni ndox ca dexuk njaareem ba mu demee fekk fa ay jigéen ñuy way mu dëpp ñëw wax ko sëriñ bi sëriñ bi ni ko ñooy say soxna ca àjjana dama la ko doon wan siiw na sëriñ Alsey Njaay radiallahu taala anhu mas naa joxe li mu am lépp ba desewul am mbubb mu muy sol laxaso ak basang jox lépp sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo sëriñ bi jëlaat ak kurus ca loola wax ni nañu ko ko jox mu ciy tudd yàlla mu wax ni xamul yàlla moom la xam sëriñ bi ni leen wax leen ko mu téye ko ci sama ndigal ak njaboot gi siiw na loolu mooy gàttal gi booba ay soxnaam da caa bokk moom la jublu ci njaboot gi lu man di xew bari na lool ay wax yu Sëriñ Tuuba xaadalahu la maxtaloo wax ci moom yu nuy xamal darajaam waxin yi ak nettali yi nag dana faral di am ak yokk ak i wàññi wallahu alam am na kilifa gu mas a yónnee ci Sëriñ Tuuba xaadalahu la maxtaloo lu ma téeméeri ndaa lu ma téeméeri mag yanu ko am bu ci toj ñu jënd beneen dolli ca ba ñu agsee ba sëriñ bi gis ko ba xool ko laaj lu waral wuute gi ñu xamal ko toj gi mu wax ni nañu jëli ndaa loolee ma ngay yuuxu fa mu nekk siiw na sëriñ tuuba xaada lahoo laahu maxtaara lahoo mas naa wax mbaa yéen ngi jàng sama xasaay di ñu ni ko waaw sëriñ bi ni dee leen ko jàng man rekk maa ko bind te kenn jàppalewu wu ma ci te xaraf wu nekk ca lawhul mahfuz laa ko jële wasalaam siiw na wala wir na lool ndax aktubu la naqilan min allawhi wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin bokku na ci melo sëriñ tuba xaadalahoo law maxtarlahoo bañ ak yàq ñi mu yaral boppam ñëpp itam noonu lañu mel ak li ñuy bërile bërile siiw na wala tusrifoo innahu la yuhibu almusrifin saddaqa allahu alazim Sëriñ Tuubaa xaada la woo maxtaar la woo mas naa bind lool lu mat juróomi nit ab kaamil ni leen nekk na bind fukki xisib ak ñaar ba ñu ko bindee ba andi ko mu ni leen dellu leen bindiwaat ba ñu ñëwaatee mu ni leen dellu leen bindiwaat ñu di ko def ba muy fukki kaamil ak ñaar boobee la leen waxoon xoo anfusakum wa ahlikum naara siiw na Sëriñ Tuubaa xaada la woo law maxtaar la woo am na bis mu wax Sëriñ Muxtaar Silla radiallahu taala buntu bi daa gàntal muy daa naqaree ubbi fexeel mu nangu mu daa woo sëriñ kale say radiallahu taala mu daa ñëw defar ko fasansa siiw na sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaara lahoo mas naa boole sëriñ saalihu ak sëriñ abdul ahad ak sëriñ soaybu ak sëriñ abdullahi jaxate radiallahu taala ab kaamil ngir ñu ci jànge ca lañu jànge ba mokkal wér sëriñ saalihu daana wax ni booba sëriñ bi bari na ay kaamil lool nee na itam sëriñ abdullahi jaxate moomu sëriñ bi moo leen boole woon ni leen nu ngeen di def na ngeen koy defandoo wallahu alam am na kaamilub sëriñ sila silla radiallahu taala anhu boo xam ni sëriñ tuuba xaadalahoo laaw maxtaar lahoo moo bindi tàmbuli ba ba ca humul muflihoon ak suratul ixlaas ak fàllaxi ak naasi ca mujj bokk na ci kaamil yi mu daan jànge ci biir géej gi wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo am na bis mu ñëw ci kër sëriñ cumbuleen radiallahu taala an fekk ko mu dem ca tool ya ba ñu ko nee sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo ma nga ca kër ga mu daa mu daa di bàyyi lépp di ñëw mel ni koy daw sëriñ biit di ñëw di taseeg moom naa ko haa sëriñ haa sëriñ mel ni ku yéemu wér na mag ña dañoo fonkoon mbay lool ndax lii bi ko sëriñ cumbuleen di def fekk na mu nekk mag lool radiallahu taala anhu wallahu alam ku ñuy wax moor sàmba yaasin ka mas naa ànd rakkam sëriñ bilaal ka ak mbooloo mu bari fekk sëriñ tuuba xaadalahoo lahoo maxtaar lahoo ca gànnaar sëriñ tuuba xaadalahoo la maxtaar lahoo boole sëriñ bilaal ka ak moor samba yaasin radiallahu taala anhuma ni ko boo demee dee fa teqale fen siiw na moor samba yaasin radiallahu taala anhu bi mu faatoo ba ñu wax ko sëriñ tuuba xaada laho law maxtaar laho fekk ñu denc ko sëriñ bi daa joxe suuf wax ni nañu wàqi ba jot ko sotti ko ca siiw na sëriñ tuuba xaada laho laahu maxtaara nee na ku jëm fa yàlla subhanahu wa taala di jaxasoo nit ñi mi ngi mel ni ku yére yu weex tàll dugg ci biir ñuy soos daa siiw na soos mooy jaxase daa wallahu aalam ñu ñëw ci njàngalem Sëriñ Tuubaa mu sell mu teey mu neex mi ci juróom ñett fukk bi ak juróom ñett Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaar lahoo bi muy doora a tàmbali daa façon di ànd ak ñeen fukk bu leen yeggalee ànd ñeneen ñeen fukk ñi mu njëkk a àndal nee nañu ñeen fukki fan la am ak ñoom ñu àgg ci yàlla subhanahu wa siiw na mas na ñoo wax Serigne Touba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo diw daa am gan muy doom Serigne bi bind ci suuf Abdourahim siiw na Serigne Gura radiallahu taala anhu bi mu faatoo sëriñ Touba dani dem leen seetal ma këram ba ñu ñëwee ni ko bàyyi na fi ñaari soxna yu toll ci ab diggante sëriñ bi ni dem leen ba te bàyyi fa ñaari ceri góor ba bis ba deetee la am ku mucc muy góor ba bis ba del siwaatee kaneen mucc muy góor sëriñ ma samba ak sëriñ ma jiga la radiallahu taala bokk nañu ca ña sëriñ bi yabaloon wér na huwa allazi yusawirukum fi l arhami kayfa yashaau am na ko sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtalahoo waxoon dama koy far dindi dara ci sikkimam ak i weyam jox ko mu lekk mu ni ko danga am lu baax waaye na ngay sellal wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo mas nañu ko wax soxna may mu natu daa tawat tawat ju metti bëggoon mu ñaanal ko sëriñ bi ni duma ko ñaanal ndax kenn du dénk koo wóolu ba noppi topp cay jeex man ku am yàlla laa ko dénk képp ku ma am lépp looy xëcc xëcc ko ci topp yàlla looy jeñ jeñe ko ci topp yàlla siiw na sëriñ bi dong moo wakkirlu ci yàlla subhanahu wa taala bu wér a moo doy loo yàlla subhanahu wa bu wér a wér ku dul moom rek am na lu des diggam ak boroomam maam ku dese dara ci ak nite da war di roy nit ñi di faju di sàkku ñaan wallahu alam am na tubaab bu mas a ñaan sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtaloo aw foto ci moom sëriñ bi ni ko mbaa boo ëllëgee danga nga ma ci defal ak ru mu ni ko boo ma ko mayee dara du ma ci fekk sëriñ bi ni ko bismillah muy am yu muy defal sëriñ bi ni ko gaawal nun amuñu jot siiw na loolu dañuy xamal ni nataal doonu lu gën fi mu ne nag jamono moo toll foo xam ni mën a tuta ñàkk ci lu bari xam naa ni ku ko mën a bàyyi ci lépp loo xam ni mën naa ñàkk mooy doon li gënal yàlla subhanahu wa taala akub yonent akub lu mel ni carte d'identité moom ku nekk xam na ni fii nu toll mënta ñàkk waaye lu mel ni di dajaloo ci ay xew di fatowu lii sëriñ bi wax leeral na ni doonu lu gën alam